laay ñu tàggu mbaar fas yéene leen dégtali xibaar yu gën a fës ci biir semaine. l'Assemblée nationale Cheikh Abdou Bara Dolly révèle le festin financier des députés Bara Dolly wax na Bara Dolly wax na de lu mu waxati wax du rëy sax wax du rëy Bara Dolly nee na culture de prédation bi ñuy def ci alalu réew mi dafa war a dakk dafa war a jeex ndax weer a ngi nii ca Assemblée nationale député bu nekk dañ koy jox ay gratuit te loolu sax mën naa ñàkk ndax ñoo am nañu seen salaire waaw waaw dëgg biir sax Bara nee na tamit deux cent mille francs CFA pour indemnité de yi ñu di jox te député kër gu ne mut sax kër gu baax loolu du yoon loolu du yoon dañ kaa war a wax baara ba ma nga xam ne ba tey yaa ngi soog a wax li ma neex te it après votre session budgétaire bi commission des finances jox na député bu nekk cinq cent mille francs CFA ëppëtëlu te yamuñu ca sax ñenn ci député yi am nañu dem ba ngaal sax birig mooy lan un million francs CFA e eh waay ndaw sàmm waa nekk député moom naka te ni nga neexee ah man de bu subaa ma nekk député le Coritep exige la libération contre le troisième mandat du président Macky Sall ci seen doxub ñaxtu bi ñu doon amal aljuma ji ca place de la nation seen mbébét mooy xeex ngir détenu politique yi génn ci jàmm te dellu ci seen njaboot ku si mel ni Papito Kara Cheikh Oumar Diagne Karim Xurum Xaq Ousmane Diagne Fadilou Keïta ñu sukkandikoo si ay kàddu Pape Abdoulaye Touré membre de Corridor la motion de censure rejetée Amadou Ba est victime de sauvetage waaye Yewwi Askan bi xalam demoon na bay neex daal gum ba dox ndax li ñu doon fexeel Amadou Ba ca national nationale antuwul de antuwul ngir mu teggi ndombal tànkam ci post premier ministre waaye mu jéewul antu waaye man lu ma jaaxal mooy waawalu askan bi ànduñu ceeg ñoom ànduñu ceeg yeewi askan wi li de doy na waa tey ñu ànd suba duñu ànd waaw man ma foogoon ni opposition benn la ñu war a doon ah jaaxal na ma daal jaaxal na ma moom ndax grossesse Damy Ndiaye ñii bi borom maa tay ami nga ni ma maa tay maa la ko wax Barthélémy Dias il évoque des louches dans cette affaire ndax Barth nee na nguuru Macky Sall bii ñu ñu jiiñ ëmb ñëpp dañoo bari te wasina guñu wasina guñu de eh waay Barth ngay tappaas nag ma ngay tappaas de moom moom mbaaru Adji Sarr lay waxal ah waaw baax na waaye leer ba leer mooy Barthélemy Dias jàpp na ni Ami Ndiaye ëmb ëmbaanu loolu yëpp ay dóor la ay dóor yu rëy sax waaw waaw ay dóor yu rëy moo Barth nga ne l'éducation sénégalaise sous une menace de grève car de SAES relate huit points quels sont les points bi ci gën a fës mooy revalorisation du statut des décisionnaires et eh waay école ubbeeku sax ñaxtu yi commencé moo état kii yee tii te waa SAES ñi ma gis waa SAES si ñi ma gis kafuñu de kafuñu de barke yonent bi kafuñu daal état li ñu lay wax mooy lépp luy bëgg-bëgg sayer si mi la def ko gaaw ndax ndaw ñi dañoo war a jàng dañoo war a jàng torop sax sport leen koy jeexale la course d'une troisième étoile entre Messi et Mbappé qui joueront la finale de la coupe du monde 2022 à Qatar à qui pour le sacre ñu ngi xaar daal ñu ngi xaar tey seetaan waaye li wóor ba wóor mooy Messi kaful fawut reewul waaye lu ci doy waar mooy Mbappé daal daa màgg Mbappé nekkatu xale cey bi nga final du saf ni Moustapha Gueye Tyson rek ba ñuy bëre ndaw lu rëy bokk yi maa ngi tàggatoo di leen jox dig daje ba beneen ci leneen sur la